yoona saar fukk bi mu waxee noonu ba noppi yéesu jóge fa ak i taalibeem jàll xuru sedron dugg cib tool yudaa mi ko naroon wóor xamoon na it barab ba ndaxte yéesu daan fa dem ak ay taalibeem yudaa daldi fa dem yóbbaale mbooloom xarekat ak ay alkaati yu ko saraxalekat yu mag ya ak farisiyen ya jox ñu yor ay jum ak ay làmp ak it gànnaay noonu yéesu mi xamoon li ko waroon a dal lépp jub si leen ne leen ku ngeen di seet ñu ne ko yeesum nasaret yéesu ne man la fekk yudaa mi ko nara woor ma nga ànd ak ñoom bileen yéesu yeesu ne man la ñu daldi dellu ginnaaw ba daanu yéesu laajaat leen ne ku ngeen di seet ñu ne ko yéesu nasaret mu ne leen wax naa leen ne man la bu fekkee ne nag man ngeen di seet bàyyi leen ñii ma àndal ñu dem noonu la baat boobu mu waxoon ame baay kenn sànkuwul ci ñi nga ma dénk bi yéesu waxee loolu ba noppi simon piyeer bocci yi ji mu yoroon daldi dóor surgaab saraxalekat bu mag ba nopp ndeyjooram dagg surga boobu mu ngi tuddoon malkus waaye yeesu ne piyeer roofal jaasi ji ci mbaram ndax waruma naan kaasu naqar bi ma baay bi sedd mbooloom xarekat ya ak seen kilifa ak alkaati yawut ya jàpp yeesu daldi yeew jëkk ko yóbbu ca anaas ndaxte anaas mooy gorob kayif mi doon saraxalekat bu mag ba at mooma kayif moo digaloon yawut ya ne li gën moo di kenn rekk dee ngir mbooloo mi mucc bi ñu yóbbu yeesu simon piyeer ak keneen ca taalibe ya toppoon nañu ko keneen kooku nag xamante na ak saraxalekat bu mag ba moo waral mu duggaaleeg yeesu ca biir kër kilifa ga waaye piyeer moom des ca buntu kër ga noonu taalibe boobu xamante woon ak saraxalekat bu mag ba génn wax ak jigéen ja doon wottu buntu kër ga fexe piyeer dugg ci biir mbindaan mi doon wottu bunt bi ne piyeer mbaa yow it bokkuloo ci taalibe waa ji mu ne ko déedéet bokkuma ci booba dafa seddoon ba surga ya ak alkati ya booyal ab taal di ca jaaru piyeer itam taxaw di jaaru ak ñoom saraxalekat bu mag bi daldi laaj yeesu ci lu jëm ci taalibeem yi ak ci njàngaleem mi yeesu tontu ko ni ci mbooloo laa doon waxe ca kër yàlla ga ak ci ay jàngu fa yawut yépp di daje laa mas di jàngale musuma wax dara di ko nëbb lu tax nga may laaj laajal ñi doon déglu li ma leen wax ñoom xam nañu li ma doon wax bi yeesu waxee loolu kenn ci alkaati yi nekkoon ci wetam daldi koy pes ne ko ndax nii ngay tontoo saraxalekat bu mag bi yeesu tontu ko ni su ma waxee lu jaaduwul wone ko waaye su ma waxee lu jub lu tax nga may dóor anaas daldi koy yebal ca kayif saraxalekat bu mag ba ñu yeew ko ba tey fekk na booba simon piyeer moom ma nga taxaw di jaaru rekk ñu laaj ko ni mbaa yewit bokkuloo ci taalibey waa ji waaye piyeer weddi ko ne déedéet bokkuma ci kenn ci surgay saraxalekat bu mag ba di mbokku ka piyeer coroon noppam ne piyeer xanaa du yow laa gisoon ak moom ca tool ba waaye piyeer dellu weddi ko noonu ginaar daldi sab bi loolu wéyee ñu jële yéesu ca kayif yóbbu ko ca kër boroom réew ma ci waxtu njël la woon waaye yawut ya yéeguñu ca taaxum kaw ma dañoo bañoon a taq sobe ngir mën a lekk ca ñamu màggalu jéggi ba looloo tax pilaat boroom réew ma génn dajeek ñoom mu laaj leen ni lu ngeen di jiiñ waaj yi ñu tontu ko ne bu deful woon lu bon duñu la ko jébbal si pilaat ne leen jëlleen ko yéen te atte ko ci seen yoon yawut yi ne ko yoon mayuñu ñu àtte nit teg ko dee noonu la kàddu yéesu gi amee ci li mu misaaloon ni mu war a faatoo ginnaaw loolu pilaat duggaat ca taaxum kaw ma woo yeesu ne ko ndax yaa di buuru yawut yi yéesu tontu ko ne ndax yaa ko xalaat wax ko am dañu la ko xelal ci man pilaat ne ko mbaa xalaatoo ne man yawut la sa xeet ak saraxalekat yu mag yi ñoo ma la jébbal lan nga def yeesu tontu sama kilifteef nekkul ci àddina bu sama kilifteef nekkoon àddina sama surga yi dinañu xeex ngir bañ ñu jébbal ma yewut yi waaye sama kilifteef nekkul àddina pilaat ne ko kon yow buur nga yeesu tontu ko wax nga ko buur laa lii moo tax ma juddu ñëw àddina ngir wax dëgg gi ku bokk ci dëgg dina nangu li ma wax pilaat laaj ko ne luy dëgg gi bi mu waxee loolu ba noppi pilaat daldi génnaat jëm ca yawut ya ne leen gisuma ci moom genn tooñ seen aada laaj na ma bàyyi leen kenn saa suñuy def màggalu bésu jéggi bi xanaa ma bàyyi leen buuru yawut yi noonu ñu daldi yuuxuwaat déedéet waxunu kii barabaas lanu wax fekk barabaas moomu taskatu réew la woon